aboneel bul fàtte bës notification bi ngir ngay am suñu vidéo salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di nuyu sama mbokk internet yi di leen wax ne yéen seen émission noo koy defee ak les tiktokers yu góor yeeg yu jigéen yi ci olof di jëfal sama yaay bu baax a baax di ko nuyu jàllu jéeri di nuyu baaji ba seen sama jëkkër sama pap sama xarit di nuy sama doom bi Ousmane Mouhamed sama caat bi day isa sama caat bu xataaral boobu caat bu jigéen <laughs> maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen wax ne ko tey ñaari gan yu am solo laa fi dara an dayaa dafa yaru rakkaaju ba dégg rakkaaju ba dégg ceer tiktok mooy rakkaaju ñu dalal suñu ñaari gan yi xaama bàyyi leen ñu nuyu ndaya nuyu ñu lay seetaan boog ndayaa déglu ma rek man xola man chaque jour ma joom mi déglu ma rek ndaya mën nga wax ndayaa li ngay vidéo daleen ko wane fii bu ma kenn jaaxal bu ma kenn jommal nuyu ma waxal waxal rek nit ñaa ngi lay dégg yow tamit. tout d'abord maa ngi lay nuyu. Mhm. maa mhm. daal. ñëpp daal naka Medina. kulluhum ñu ngi si jàmm bu baax ñu ngi si jàmm. Mhm. waaw maa ngi siyaar gars yi di leen nuyu ah ñun ay tiktokeur lañ tey ñu doom day mu ñu invité mami. donc may neexal de <laughs> ah ceer Thier nag am nañu ko yàkkamti woon ah, di ko laaj naan Thier dafa war a ñëw ci plateau bi expliquer gars yi Thier moom kan la yépp Thier ñu ne Thier kañ la kan la yépp na ci néegam di vidéo ay vidéo am ba na heure lay def vidéo ñi naan Thier dafa xëyul dafa gontul wala dafa am jot Thier moom néegam bi muy defee vidéo armoire bi di daanu ci kawam lan la Thier yow lan la lu xew gaa yoo ko wax de ah noo koy téye noonu noonu mel na mel na da nga koy téye ah, ii Thier Thier te wan ma ni nga mel waaw euh, vidéo yi dañ koy def comme bi ni ko waxee rek mm-hmm. bon gars yi amoo dara loo def ah, saa yi gis ne pour ñu commenté noonu mm-hmm. mais juste pour préciser rek ñun ñëpp ñoo ngi job xam nga ñii ñoo mm-hmm. dafa doon loo xamante ne nag boo ko gisee da ngay yaakaar ne yëpp la siy jël pour def benn vidéo alors que benn 15 minutes rek la siy def. Mm-hmm. donc vidéo yi vite fait la koy def rek pour ñu doon wax Thier liggéeyu naa amul xëy amul gont dafa am jot di vidéo nekk néegam di cëppi cëppi yii boo ne boo boo jàll iPhone bi jëli mën nañ la message dañoo mën a ñaan téléphone wala jàll la ko Instagram mi ngi fépp ah. ci affiche yooyu noonu donc téléphone yu bees dàq la ñuy. téléphone ngay jaay daal. waaw donc aussi réparation aussi dañ koy téléphone yëpp daal la. ngay jaay dangeen di leble wala da ngeen di fay bëccëg la wala payable normal. par facture ah. kon naa bàyyi ba ci kanam. ñingi ah, de mi ngi may nak may jox mal tay ji nee dafa indi monte yarom neen dafa yaru tay tey da mi nga xamanteni suma ñëw ci vidéo bi leg ngeen leg ngeen waru ndaya yow moom dégg na sa appartement nga yoy di def say vidéo def sa numéro ca gannaaw sànni ko ca gannaaw ndaya ko dëkkal wala sa appartement nga nek wala fi ngay defee sa vidéo yi fan la <laughs> loolu rek mu sa appartement de mag sama yaay mi dëkk ak sama mag ci appartement fi ñuy wane numéro bi ci ginnaaw Ndaya waaw Ndaya Ndaya tontu Ndaya léegi laa dugg sa compte TikTok bi di xool sa vidéo yi Ndaya rek lay woo nii ah tontu ma ci appartement la wala kër famille la. non non du appartement de. Ah. suñu kër laa nekk di ko def. nga tontu oyof na de du appartement. non suñu kër la. yéen ñu doon wax ndaya appartement la yor comme Sénégal ñoom ni ñu ni ñu ni ñu maanaam disponible rek ci joxe information ndaya kër yaayam kër papaam la nekk di vidéo pour ñuy xool numéro bi néegu pël fu kër pël fuuta la loolu nga wax sànq ah néegu pël fuuta ah nee na néegu pël fuuta la ah? numéro bi néegu pël fuuta la ngeen xamee ko noonu <laughs> man dama daan gis sa commentaire yi trop naan waa xale bi ni mu toll am appartement am di ci def ay vidéo mu jaaxal ma trop ndekete yoo gars yi moom macha allah dañoo disponible trop trop trop euh, Thier mhm. waa Thier yow koo yeb Thier say vidéo da saaga xaw ma ay vidéo dañ maa yóbbante su suma dara nag su suma dara ni ma koy waxee rek su ma sañoon ku ci ne damay xool sa xool xool la neex ma wax ko mais su ko ay yóbbante ñu yóbbante la nee ñu Thier dafa vulgaire Thier lu ko neex lay wax ci vidéo mi Thier bu laalu douche mangay laal xale yu jigéen cher lu ko neex lay wax cher est-ce que vidéo yooyu ngay ne def xalaatoo leen fan la war a mën a egg vidéo yi fan lay dem vidéo yi est-ce que ëllëg seen doom yi dañ koy seetaan cher est-ce que bàyyi nga xel sa yaay mi ngi seetaan sa vidéo say parents wala kenn sa membre famille bi nga xamante ni xëy na loolu du ko neex dafa am ñoo xam dañuy ne ci famille am kersa trop trop trop gis seen mbokk di def yenn vidéo yi nooy dundee loolu donc déjà pour vidéo yi donc contenu bi laay wax déjà donc man moom su may jaaraat ci vidéo fekk mu nekk lu xorom ba man su may choisir lu ma xam ne lii nga ma ko defee si vidéo bi. Mhm. dina dina dina bon réaction bi ma si am mën na atteindre ñeneen ñi quoi si mhm. reetaan boobu noonu. Mhm. donc euh, vidéo yi man moom ak nu mu mënti doon su fekkente ne reetaan loolu moom moom. donc moo koy su nag peut-être yenn saa mu xaw a dépassé wala genre yooyu noonu. mais dina am ñenn ñoo xam ne dañ koy seetaan. ñoo xamante ne dañ koy bëgg. ci loolu noonu am na ñoo xamante ne aussi par contre euh, mën nañ ko bañ a kii mais man samay commentaire si koo xamante ne gis na genre vidéo yooyu muy commenter négativement quoi. Mm-hmm. donc euh, côté famille. Mm-hmm. je peux dire que sama gars la man moom maa ko daa fa guddee quoi. amuñu problème boobu am nañ ba pare des fois damay def euh, ne mooy paa bi doon wax damay cottu mooy kii bi noonu. waaw mooy seen saaga yi rek da saaga da ngeen saaga. ba envoyé ko ko. moom jëkkëram dañuy seetaan ci biir vidéo dañuy reetaan ba nga sonn. donc je peux dire que côté boobu aw ma si problème quoi parce que gars yi xam nañu ko pare sama waa kër. kon su ma déggee waxu ñu nga moom ay vidéo dérangé wul ay waa këram nii ah. gisuma la de lumière bi ma poussé ko ah bàyyi ma fomp waale yàlla moo tax si léegi du ma la gis de du ma la gis bu baax de. bu faatu nag fan yi laa commencé gis waaw ba léegi yéen seen émission noo koy defee ak te tiktokers ma dalal fi Ndaya ak euh, Thier borom tiktok Thier bu ngeen déggee ay waxam nee na vidéo yi dérangé wul ay waa këram dérangé wul ay mbokkam kon yaakaar naa ku mu dérangé yaay sonn ay yoo ko déggandoo Ndaya gis nañ ni nga am benn niveau ci tiktok ay cent et quelques mille abonnés abonné ay fans lañu mais gis na ko góor mo ci ëpp xale yu góor yi ñu ëpp sa abonné yi ñom ndaya mo leen neex ndaya mo leen neex wala ndaya limuy def mo leen neex wala lan mo xew parce que sa abonné vérifié na ko mais góor ñi am paga ño ci ëpp torop sax ma sha allah. loolu moom dama la aussi dama koy sant yàlla parce que nit gis nit ki rek bëgg ko. loolu amoo fayam voilà donc ñooñu noonu presque xawma ci kenn. tamit xaw ma lan moo waral ñu bëgg na xaw ma vidéo bi moo tax xaw ma Néha ci boppam moo tax mais franchement xaw ma lan moo tax. yeneen saa yi duñ lay message xam nga naan la jox ma sa numéro WhatsApp affaire yooyu jël comme ni ngeen koy defee. si si si ci dama ci. Euh, day am waaw ci am lu bari sax mhm. jox ma sa numéro ñu naan da nga ma ne même ba si jigéen ñi sax dañ may laaj sama numéro. non góor ñi góor ñi góor ñi laa insisté. góor ñi waaw ñoom dañ may laaj sama nga leen koy jox. non non. amul kenn kooku dégg na am na kooku ci jox de kula xam sax ah ma laaj ko serigne bu torop ndaya ma xam ndaya waxal ak man bu fi ñew di ma jaay ay affaire de ak ay yu kenn xamul sey vidéo sax bo ci kuuloon nopp man ki dafa kuul naa ko topp mais yeen ñaan ñi kuuloo leen surtout yow cierno yow mi nga xamanteni yaangi toj tiktok bi sa vidéo yi lañ koy xol léegi man xàmmee ma la bi nga ñewé sax ah non xàmmee ma la parce que xawma cier bi man cier bi ma xam moy sol ay sabadoram ah di cepp cepp di fecc wa di fecc ay fecc man loolu la xam ci cier musuma xam ni cier war na mën sañse def jil laal sañse ni xam nga wa mosuma xam ne day laal sañse nii xam nga def sañse bu rafet nii mosuma koo gis ci ceer ceer pour man xamul sax ti wala sabit ñaata lay jar waa def loolu lañ leen yaakaaree de noo koy defee la ñu wax vidéo yi noo koy defee noo koy waajee ak est-ce que say waaju d'accord na ci vidéo yi ngay def ah man ma ma koy def risque bu rëy laay jël mm-hmm. bu dee yi moom amul problème mm-hmm. bañ na ko sama yaay suñu waa ko ñun dañuy suñu kër ñun dañuy taxaw li ma seetaan

Ndeya fi mu nekk nii yaakaar na ni bu TikTok doon wàcc fii di joxe milliard Ndeya lay njëkk a woo Ndeya ah, bés boobu noonu ngeen yenu nii ngàmb ko noo koy dundee bés boobu noonu ngeen teg seen bopp sax laay wax nu ngeen koy dundee. lan nga dundee. non ay star bu ma laaj bés man maa la ko ma sama bopp star. parce que def fi dara loo xamante ne war naa a nekk mm-hmm. TikTok lan mooy TikTok moo war a jël sa bopp aj ko après loolu la lañ leen di lan mooy TikTok de lañ koy laaj mu laajaat ndayaa may ma ndayaa may ma lan mooy TikTok nee na lay laaj man loolu laa bëgg laaj ba waral ngeen am ci jot am ci seen temps ndayaa tax ma loolu parce que dama xam ne TikTok du dara pour ne rek pour nit ki ngay bëggee nit ki loolu jarul ngay yëg sa bopp parce que loo xamante ni da ngay seetaan nii rek yéega niveau weesuwul nga am cent treize et quelques mille abonnés di abonné wu ci ay cent personnes wala mille personnes du ngeen abonné sama genre gi ah borom cinq mille abonnés yi. ñaata gis nga yow macha allah yow. ah <laughs> lu tax ñuy abonné ci yéen du ngeen abonné waat ci ci ci ñoom parce que ñoom dañ leen di suivre wala ñoom li ñuy yéen yéen li ngay def moo leen neex ñoom mais yéen ñoom li ñuy def neexul ñu leen. non même pas xam nga lan moo tax. Mhm. parce ñi ñi ci bëri di la abonné ñoom def ñu vidéo seen page boo fa duggee du am dara. Mhm. du am dara ñoom am na si bëri TikTok ñu si bëri sax ñoom comprendre ñu ko li ñu dugg du xool vidéo rek mais comprendre ñu ci tiktok bi dara. Ndaya en tant que jigéen am na vidéo buy daw ci dëkk bi fan yi actualité benn ku jigéen ku sàkk ci war wërsëgu jàmbur laa mën a wax en ah, parce que ñu di ko vidéo di ko partagé est ce que ragaloo ni ko vidéo yi ñuy partagé di ko foyee nii est ce que amul fu mu mën a egg surtout tiktokeur yi nga xam ne vidéo bu ñu for ñoom pour ñoom tiktok lañ ko war a sànni. Ndeya mënoo ne ma da TikTok te ma li ma ci xam bëriwul de. Hmm? man damay dugg TikTok seetal ma li may waxati waa waa Sénégal waa TikTokers ñu ngi nii ah. information ci dëkk bi ah xamuñu fu corona bi toll xamuñu fu actualité yi am na ku jigéen ku fi sàkk ci wërsëgu jàmbur gars yi di ko partage ci dëkk bi mu naqari ñëpp metti ñëpp ñoom yëguñu ko ah. amuñu benn stress ñoom yéguñu ko TikTok la ñuy def <laughs> moo lay wan ni ñoom. kenn xamul ban monde la ñuy dund seen temps la ñuy jël mais est-ce que yaakaaroo leen aussi déglu information yi ci la bokk parce que kuy def vidéo da ngay def vidéo actualité yow Ndaya en tant que fi mu toll TikTok nga ne TikTok man xamuma si dara damay vidéo rek. man TikTok damay romb su ma gisee benn bu ma neex ma def ko mais pour dem di. Ndaya yaakaaroo da exposé sa bopp. sa bopp comme kuy jaayu soit kuy wane sa bopp. wala parce que ñëw rek vidéo sànni dem ndaya loolu lu muy ndur exactement. non non même pas parce que man man man jubluwuma ci woon li yëpp de man pour man parce que dama gis ñuy def TikTok mhm. nag le fait que may gis nit ñi ma def ko mais ba tey damay gis bu neex rek ma def ko. on dirait que woo ko carrément xamoo lu ci war a fekk xamoo ci dara am nga ay abone am nga yenn niveau yi tout court jeex na seen projet bi nga xam ne moom macha allah ni ma koy waxee xam naa nit ñi war nañ koo miin doxaanante bi.

non dañ leen di gis que ngeen di ànd di affiché wu ñu ciblé ma que ni mooy loolu da jël Wiz nag da xam ne li muy jël daa bëri mais yow moom ciblé nañ ma ko ci nga mën ci tuuti leeral ba xam yaa Wiz lu ngeen seq. Wiz pour te dire man ak moom duñ sax déggante lu bari même message WhatsApp sax duñ ko déggante lu bari. yéen seen lépp da ngeen ko code privé ah, ñëw fi di ma jom daal non déglu ma bu fekkente da ngeen waxtaan ci arrêt ba Wiz tegal ne émission bi nu muy doxee nekk di sa garde man faalewu ma leen daya wuy ma déglu eh, tontu question jàmm ndayaa bu fekkee da ngeen da ngeen a codé seen bopp man li xew TikTok xam naa ko bu leen fi codé seen bopp lijjantiwuma leen xam naa xoola xam naa seen fii lañ leen di teg fii nii fii ci marché bi lañ leen di teg huile d'officine dañ leen ngeen affiché wu gis bu fekkoon dama koy wax ni dama koy wax ni yow yaa ma koy wax yow mi ngi koy gisal mais c'est parce que man dama xamul maa ko gis fa lañu fa lañu war a mën a nekk ba affiché foofu bu ñu nekkee mbooloo la ñuy nekk seen rencontre yi kese la ñuy gisante maag oui mosuñu gisante man ak moom nii sans pourtant mu nekk rencontre. ok Thier dégg naa ngay tontu benn euh, commentaire a ki leen di wax seen seen rencontre ngeen def ko par at. kooku ban leeral ngay indi ci moom. après message nga ma sax naa <laughs> projet jàmbur nga xool ko ba mu neex la nga ne ko seen rencontre dañ leen ko def par at Thier tontu kon ne ko ay xarit ndax dañuy toog at ba at doog a gisee kon waa TikTok mën nañu tontu. Thierre dégg naa ku ñàkk yar nga ah. waaw nee nañ Thierre Thierre xoolal man li ñu ma wax rek laa wax nee nañ Thierre ku ñàkk yar laa ah. amul benn respect ci ay vidéom ci feccam ci léppam yi noonu ma mbalax ba ma yóbbu woon boîte nii wala soirée wala noonu kese la Thierre mën a feccee ci ay feccam à part nga mën fecc Thierno ba ma tegalee mbalax moom loolu laa ko. nooy dundee sa copine bi ak sa vidéo yi. est-ce que du la xool ni ki dafa ñak fayda ki dafa ñak classe vidéo yi ni def fan la ko teg affaire yoy non? ok donc euh, loolu nekul won euh, bon bàyyante nañ am nañ am nañ benn genre kii boo xamante am nañ mal compréhension. Mhm. donc euh, ñu décidé kii c'est que en fait ñom leen mooy seen problème mooy maanaam message yu bëri yi ngay jot en fait yenn saa yi dafay yéex mhm. par exemple des fois message boo yoree iPhone boo tontoo si suuf da lay yëgalaat si kaw kaw. parce que ay star ngeen daal. non même pas du man star moom nekkul samay bagage. Thierno Thierno ñaata message ngay ngay tontu par jour yéen. naa def le max naa tontu de. yéen su ma dugg su ma wàccee dugg whatsapp ñu naan tontu ba sonn après ma door a demaat feneen nekk Netflix wala mu nekk. si mais mais Thiel loolu mooy star mooy ku yóbbu papa ma nga yaayam mag kay yor oto ma. non wala bu ma waar wuy ma déglu ma rek. bu ma waar fii am na benn xale bu jigéen tamit bu ma message yoon naan non célébrité yi noo leen dundee ma ne ko man affaire célébrité bi noonu. non Thiel célèbre nga célèbre nga ba yëg ko déglu ma rek Thiel euh, Thierno Gningue. xam nga si lan la ñu célèbre maa lay posé question déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma <laughs> déglu ma déglu euh, ma Thierno déglu ma man bu leen ma ruube bu leen leen fi ñëw kii di sëgg moom borom appartement kii naan ma yu kenn xamul déglu leen ma rek Thierno ñun TikTok li fa xew xam nañ ko du xam nga ne xam naa ko <laughs> projet bi lañ jël xola créé ko def ci code ku ci nekk boo toogee da ngay protéger projet bi xam nga noo xamante wu ñu kii dégguñ déggante message yu bëri xam nga ñun projet bi jàmm lañ fi lañ ciy wax ñun projet bi ku deful yenn vidéo yi xam nañ lépp projet bi da ngeen ko def pour uniquement tase di gisante ngeen ko defee xawma projet bu lan la man xaw ma sa nu tudd projet bi nu tudd sax. TikTok projet bi Sénégal ma leeralal la si wala garaaw la. noonu la tudd. noonu la daya si nga bokk. ci rencontre dama lay gis moom à chaque fois yow moom taamu nañ la ci ngay ñëw xaw ma ku la ciy jël mais taamu nañ la ci macha allah taamu nañ ci ndeyaa bu baax a baax a baax a baax mais nag comme niñ leen koy waxee ah yéen seen émission noo koy defee ak les tiktokers ci seen chaîne YouTube euh, Elvision Média di leen wax ni que nag nii lañ leen koy defalee ah saa su ne xaajaguñ nag bay pare ñeneen ñi ngi ñëw ñi laajoon ñi ngi ñi ngi ñëw naa ah ngi nii toog di ma jaay yaru di ma jaay classe ñi ngi da am doom. non dafa la ñu ngi. ñu ngi lay seetaan ñu ngi ñu soo may fonto soo may fonto bul fonto ñi lay seetaan. non doom fu ma jëlee doom amoo gaaw am doom waay. am na ko gaaw a. ok d'accord. na ñu ngi nee nañu TikTok bi da ngeen ci dugg uniquement pour charmer xale yu jigéen ñi. yéen bu ngeen dem rencontre da ngeen di sañse ba man su seen photo du ma leen si xàmmee da di make up tey xàmmeewu ma ndeyaa da ngeen di make up nekk beneen nit ci rencontre kese ñu ne xaw ma réunion la xaw ma ngeen woote man seetlu daf maa xaw a sonal tuuti xaw ma réunion ngeen di woote xaw ma xale jógee dañuy sañse préparé ko jënd yëre yu bees daal yu bees yéen ñëpp da ngeen di bees ah, make up euh, en fait TikTok projet Sénégal bon dafa nekk benn

daal di dañ fi doon xeex xaw ma dañ fi doon xuloo ngeen da ngeen yàgg na de na xeex la woon wala xuloo xuloo dañ yàgg kenn du ko fàttaliku foo la woon nii rek ñoom ñaar non du ma ko wooyee bu toogee wax lu woon ah mais yéen xeex ñu def ko vidéo dugal ko ci net bi ngeen ngeen du xeex fekkee nga fa bi yow non fekkeewul moom comme mais quand même ñun jot nañ cee waxtaan waaw Sénégal ak nii ah fekkeewul fo ba mais moom koo confirmé na ni dañ doon foo maanaam ku ci nekk da ngay défendre sa borom nee nañ ay doomu nday lañ comme ni leen koy waxee ah TikTok foo la <laughs> am na négatif am na positif ñu ngi sa sa commentaire yi amoo ci benn commentaire boo xamante ni di nga toog ba yàgg nga xalaat ko mu metti la trop. waaw mos naa am benn commentaire bu plaisant mais bon je me dis que ci la bokk boo demee bay def vidéo yow sa jëm bopp moment yooyu def vidéo sa stress yëpp da nga koy fàtte doo ko paree nag après nga dem si leneen mais du coup vidéo yi ki koy gis bon bu ko gisee kontaan rek ñun ça va leneen li si des ay commentaire négatif loolu ci la bokk garaaw TikTok bi amoo ci idole ah bon je peux dire que bi vidéo yi may jël rek di ko jaaraat donc cela veut dire que am naa si ñoo xamante ne neex nañu ma si ah mais pourquoi Thier pourquoi doo topp ay vidéo tafi Tafi Tafi en fait moom euh, Tafi du def euh, day jël vidéo rek. non non Tafi day woy le musicien. ah woy Tafi day woy non Tafi day musique Tafi day musique gis. buy ma Tafi barki Demba Ndiaye bu la xoolal bu la profité xaw ma dafa paan xaw ma ngeen mel ni ku yor seen chaîne ah, télé noonu nga am TikTok dafa paanoon ñu may signalé wuy ma. suma gis tiktokeur bu def musique tafi bi. Hmm. te pourtant seen bokk la ngeen da ngeen créé seen xaw ma projet pour nekk famille ah. musuma gis kenn tiktok musique bu taf dafa neex dafa mënul woy tafi tafi bu bëggee ñu defal ko loolu tamit bu ñëwee nañu gars yi jàll leen ma lii dañ ko koy defal moom suñu doom ndey la ñun ñëpp ay frère lañ di passé rek di dum déggan da ngeen di xaar man sama jëm bopp man damay man ma ko gisee mu neex ma day daal loo ma rek ci laa koy doon vidéo quoi mais ay son moom xanaa ay joor mbaay yooyu noonu xawal touché sensibilité gars yi ñuy ñu nga sa vidéo yi ngay def yaram leen fan nga ko def te yaakaar naa ni que boo jàngul tam dégg nga ni alxuraan mu teree jigéen di wane ay cëram noonu la ko teree góor. pourtant man lu may def yaramu neen sax. lay def noonu demi yaramu neen damay jël darab muur ko su ma defee yaramu neen sax darab laa jël muur xam lu tax man muur jigéen yi nga xam ne da ngeen koy toppandoo te dèjà borom ñaari tur yi dafa xaw a bëri. souvent ñuy gis ngeen di toppandoo ay vidéo yi nga xamante ne bu dee dama rek borom ñaari tur yi dafa bëri waaw ñu koy tere ngeen di jël ay asulaaw bi nga xam ne jigéen la di toppandoo ay vidéo def yëfu jigéen sol ay robe sol lu nekk waa Thier yéen exactement yéen ñu xool li ngeen di def wala tey jii ku la tiimoon ne la borom ñaari tur yi nga xeex te pourtant yaa ngi def li nga xamante ni góor du sol yëre jigéen du sol yëre jigéen sax d'abord da nga musóor waaw mën naa jël sama serve bi musóor

góor yàlla la nee na Baye ah. day wane boppam na ko pour musóor yi muy def ndaya seen concurrence bi ci TikTok bi ah sañse bi make-up bi jaay taar def ba mu rafet des fois fi ñuy vidéo du seeni kër ah dañuy dem tànn beneen kër bu seen copain bu nice wala seen xarit vidéo ko exposé ñii di góondi góor yi ñii di góondi jigéen ñi euh, ndaya seen jaayante bi ci TikTok bi defante bi yéen jigéen ñi même seen commentaire yi jigéen ñi ñooy commentaire négatif ci seen vidéo yi man moom franchement gisuma concurrence. yow Ndeya loo gis TikTok. yow gisoo fa dara man gisuma parce que gisuma. non Ndeya yow yow Ndeya dama yaakaar ni yow da ngaa dugg. Ah, TikTok man man may ma Ndeya Ndeya may ma yow Ndeya da ngaa dugg TikTok. nee nga maîtriser woo TikTok bi Ndeya yow xamoo TikTok dara Ndeya yow da def ay vidéo rek di dem xamoo sax ndax am na concurrence xamoo ndax am na nangam. man moom concurrence moom franchement. mais d'accord aussi ci solu beeg. yenn comportement non non man mañ na ko ba man sumay sumay sumay tiktok la plupart duma def make up su ma make up sax ni commande dañ naan make up japp la jàpp parce que ma tàmm naturel de trop. parce que dañ la da nga rafet. non même pas man. yow mu re dal yaa ngi. <laughs> wala laaj kay wala xale góor yi yaa non man moom. moo tax ñu lay jil l'officiel kon nga diko wéddi fi nan man ak mom sax xam nga. tok na bëggatoo ko xam. xam ko de. non mais mais sànq ni nga wéddi ba dama dem na bay xol ba koy bëgg téléphone. laaj ko ba xam li nga wax moo la moo la yéem mais warul la yéem yéen nga xam ne déglu ma ndayaa plateau bi ku fi ñëw bëgg a yéemu te yéen a koy def loo séq ak wiis nga bëgg xool asamaan di wii di ma xool man di ma lii di xool ceer pour mu jàppale la boo bëggatoo xam wiis naan man sax li ma koy dégg bëriwul moom laaj ko après nga laaj ko naa ko woo téléphone laaj ko kon naa ko woo teg naa ko fi mu toog dégg na li ma ko laaj mais li man laaj daa mel moom da koo dëggal émission yi nag bu dawee di nga di nga di sa bopp mbaa xam nga loolu. non man moom man aw ma lu may ragal li am laa li am laa. am nga wax sequ leen dara. li ngeen di déggante bëriwul. waaw ba léegi yéen seen émission noo koy defee ci <laughs> chaîne chaîne YouTube El Vision Média ma dalal fi tey ñing Thierno neen tey dafa indi yaroom indi caractère am Ndeya borom appartement bi xale bu am liberté bi nga xamante ni moom dañu yaakaare woon appartement am la yor. di leen wax ni que nag nii lañ koy defee saa su nekk ah kontaan nañ nag bu baax a baax a baax ñu ngi di leen wax ni que li ngeen nekk lu nekk mën na leen ci fekk am ci fulla am ci fayda parce que tey ji ñu bëri ñuy def vidéo fa lañ leen di gisee ñuy joué ci série yi kon yaakaar naa mën nga ko def foo mu indil leneen tey ji ku ci nekk li ngay def même bu fekkee foo la boo demee ba si biir mën nga ci sensibiliser parce que vidéo dafa visible loo ci bëgg a jàllale jàllale ko ci kon ngeen bàyyi xel vidéo sensibiliser aussi parce que nit ñi dañ leen di suivre bu la xasee ba suivre rek déjà benn benn benn acte bu ndaw boo ko defee ñëpp dañ lay topp du ci mel ne corona bi tey boo si defoon vidéo sensibiliser la yow aussi ku ci mel ne Ndaya boo si defoon vidéo sensibiliser la mais on dirait que am na benn information ci dëkk bi laa bu neex la suppu kanja daal d'accord mën nañ leen sensibiliser waaw ñu euh, ngi ah bëgg nga may ma ci tontu bi nga tontu waa ji léegi nii ki la doon wax seen daje bi mais ni ko tontu ci vidéo bi laa bëgg ki la doon wax ngeen baab at ba at ngeen di daje. waaye waa at ba at léegi loo bëgg yow. wuy <laughs> sama ndey ay guru bu jaamu nga leen di tànnal ban at la ñuy daje wax ma rek may ma studio loo ko tontu. non ni nga ko tontu ci vidéo bi laa bëgg. ah loolu moom <laughs> vidéo bi xaar ma tegal. da ngaa maîtrise non du ko tegal. am naa vidéo bi ni nga ko tontu man laa bëgg en direct nii. man ni nga ko tontoo laa bëgg de. waaw dama ne ko ñu def ko président rek. non tonto ko ni nga ko tontu ci vidéo bi loolu laa bëgg. bi Mari Njaago boobu. laa bëgg. Mari Njaago bi laa bëgg. Mari moom ko laa bëgg tey rek ma ko fàttali. waaw hmm. ah, yow ma dañu la war a def fu président nga doon kuy def say dogalu foofu waaw. bu la neexee nag ku gisante nga jël ko nga tëj ko foofu ba mu ne rabu wala nga fóotu maamam foofu waaw gis naa nga ci def ay mm. vidéo yu am solo Ndaya yow aussi bàyyi xel ne que jigéen nga bu la bës bi nag yéegi dégg nga bu mu la aj ba nga yaakaar ne romb nga niveau Viviane ak Coumba lu Seck wala nga leen di diir mbagg yaakaar ne que léegi star nga ngeen bàyyi xel ne que vidéo yi aussi daf fiy des te ay jigéen ngeen da ngeen di sëy kon ñu leen wax ne que seen émission noo koy defee ah tey sama ñaari gan yi laa fi dalaloon di leen bàyyi na ku ci nekk joxe sa mot de la fin Ndaya looy wax ñu la doon seetaan waaw man la xool ma man nuyool la Thierno ñëwagul yow laa wax Ndaya de bu ma fekkatee sa vidéo TikTok ngay mañax mañaxi dama lay màtt donc boobu TikTok yow kese mais mais loolu complexe la yow kon bu la tegaloon mbooloo doo doo doo vidéo. <laughs> kon da nga am jot rek di vidéo nii doog su ko di vidéo ñi lay seetaan am nga loo leen wax ndaya ah di nga nuyu seen waa kër tàggu leen. waaw ma xool itam. <laughs> <laughs> yow Thier am nga loo wax seen waa kër seen waa koñ ak ñëpp. la fin waa TikTok donc euh, muy góor muy jigéen amul benn concurrence aussi tamit ñii di ñëw wala ñi nga xamante ne commencé nañ seen vidéo ba pare dañ moytu di wane yenn euh, kii surtout jigéen ñi laay waxal parce que des fois nga gis si vidéo yoo xamante ne mhm. dafay xaw a obscène tuuti quoi mhm. donc euh, côté boobu war nañ mën a xoolaat si affaire yi jéem a reculer xam nga defaraat TikTok bi ba mu gën a nice mhm. waaw gaa yëpp tamit bu ñu mënee ñëw fekk suñu biir TikTok projet Sénégal ñu tàmbali projet yi xam nga euh, ensemble je pense que dina réussir incha allah. seen projet bi ku fi toog rek da ngay ni yéen a ngi tàmb te mën na si waaw wala gisee ngeen ensemble yéen lan ngeen créé ci projet bi. wala ku wax rek la. projet donc projet bi dañ ko commencé le 29 février. donc février ba léegi donc février boobu bu mu kiiwee rek tàkk corona bi ñëw quoi te première rencontre lañ defoon donc après ñu arrêté affaire yi benn 6 mois.

mbolo ngeen yor da di créer ay caisse wa TikTok dañu am caisse kees ah, ku feebar wala ku am social wa TikTok ñi ngi taxaw neena dañuy def social na leen duggal ba ngeen dugg yéen ko wax ñi ma xam ñu feebar soxla nimbal contacter leen ma may so non ku feebar nga contacter ma wa TikTok ma jox la si ma jox la numéro ñi ngi mi ak ndaya ñu wax ak yeen ak bu ñu la fi ñom ñom ñom ñoom ñoom dadi. bëgg rek mën nañ ko jox quoi 77 778 waaw comme ni ma leen ko waxee ah ñu ngi tàggu ñëpp ah di ziarar ñëpp di delloo njukkal ñëpp ah mbokk internet yi sama yaay booy jàllu jéeri maa ngi ziar ñëpp ah di leen wax ne que ñu ngi leen di joxaat rendez-vous waaw dama koo bëgg yow wala sentiru loolu <laughs> yaay booy maa ngi leen nuyu bu baax a baax jàllu jéeri ah sama yaay jooju nga xamante ni mooy sama àdduna mooy sama lépp maa ngi leen jox rendez-vous ba fan yi incha allah ah aboneel bul fàtte bés notification bi ngir ngay